présenté wu man la euh, honorable Adja Dado li nekk euh, conseiller maire Pape Golbino mm-hmm. ma ñëwoon fi tey ci ndogu réew mi jeune réew mi. waaw teewaay bi ni ma gisee nii mooy lu rafet la rafetlu naa tamit ndax tey fi ñoo xam ne Idrissa Seck ndawam yi ndaw yu am passif lañ ndaw yu xam fu ñuy jëm lañ yu bëgg daal lañ ndaw xam ne tamit macha allah am na lu soxla waaw ni ma diggante boobu nii. diggante bu war mën a nekk la ndax li olof di wax rek koo xam ne dafa jóg di uti ku fu mu fanaan ak ki bëgg ko wéetale te yóbbu du leen boole wax rek soow ak naka ak kon loolu suukar naan wala la waaw waraay waaw am mooy gëm président rek xam ne li ko ñor mooy askan bi xam ne li mooy ndaw yi nga xam ne ëllëg ñooy mujje kon man jàngat boobu laa ci am gëm ko lool nag xam ne dina am tamit incha allah. waaw ci commune bi ñu doon macha allah suñu maire ministre bi ñu àndal. moom defe naa ne lii tere bi day fekk si. ndaxte ndax démb ak bëkk démb mun naa ne ñëpp mi ngi fekkoon na ko ci. bi ñu jàppale ndaw yi nga xam ne ñoo nekk suñu commune di jàppale ndaw yi nekk ci département Pikine ànd ak ñoom te pour ñuy liggéey ñu ngi liggéey ñu suñu ndaw moom macha allah lii dafa ñëw xanaa dañuy dolli mais fekk nañu jum